tey nag dañ fi ñëw pour traiter benn sujet bu sérieux parce que une décision sérieuse doit se prendre le 31 octobre dans quelques jours ñu génnoon nag ci at yi ñu génn Cheikh da ngay taxaw ni ci digg grand yow sa loxo bi kese lañ soxla. boo reculer tout day baax ñu image. saa est-ce tàngoor bi jàpp ko moom itam. at bii ñu génn. waaye at bi ñu génn yaakaar naa ni ñépp xam nañ ni je suis le seul candidat déclaré dégg naa si après yeneen candidature ya nga xamante ni ñëw na ci ñu bëggoon def ay. précision de taille parce que tout bonnement dégg nañ nit ñu bëri ne lu dul élection amuñu droit nekk ci candidat yaakaar naa ni dañoo comprendre exactement enjeu yi nga xamante ni tey moo ëmb làmb ji ndax monsieur le ministre Matar Ba moom moo waxoon en 2018 ne Alioune Sarr ne travaillait si nu ñu mën a demee 2020 fédération ba mu koy wax waxloowu ma ko monde làmb ñoom ko waxloo mu jël engagement ñu bind ko ci cahier de charge jox leen ko suñu demee nag ba mandat deux ans bi ñu waxoon ne moo ngi waaj a jeex ñuy bëgg a dem ci ay renouvellement ñu xëy suba teel gis un Keba Kanté ne il est yaakaar naa ni suñ si defee ay intervention yu bëri si weer yi mujj yi jaadu na tey bi ministre bi génnee démb ci guddi ne état mooy fal jaadu na ñun itam ñu génnaat waxaat encore une fois ne man je suis candidat li ma bëgg nag mooy crise bi làmb ji di jaar tout récemment ñu gis trois phases yi CNG jaar muy la phase des services la phase des privilèges et la phase des abus bi nga xamante ni moom nañ mujjee tey avec nos frères yi nga xamante ne ñoo ngi ci biir salle bi muy les arbitres ñu bëgg ñaan tey président de la république ne ko monde làmb ségam garage yi nga xamante ni chauffeur yi fay nekk motuñu cinquante personnes dañuy dajaloo foote fal président làmb ji nga xamante ni bi ñu mujjee wax ñoom presque quatre mille licenciés nañu wax te amateur ñëwul manager ñëwul kon dañuy ñaan ñu organiser ñu des élections pour ñu mën a fal un président par la démocratie ñu jógewaat ci loolu aussi di interpeller leta di ko wax ni làmb yamut ci bëre dóor làmb dafa am lutte simple am lutte olympique su ñu jàppee ne tey lutte simple balaa ngay mën a bëre dangay joxe mille francs te pourtant su saison bi di ibbi da ngay ñëw jënd sa licence à cinq mille francs ñu jugeeti noonu soo cotisé ba pare soo daanoo dem ñibbi te doo fa jële dara ñuy wax encore une fois comité bi fi nekk wala bii ñëw dañ jàppale les jeunes lutteurs ñu teggil leen loolu ñu ñëw ci wàllu lutte olympique démb maa ngi suivre le ministre des sports moo ngi leeral ne docteur Alioune Sarr li tax ñu teg ko fi moom koy def loolu gis-gisam la c'est son avis parmi tant d'autres ndax man je pense ni lutte olympique kenn mësut a dégg biir Sénégal si jamono ji ñu toll ñu ne ñoo ngi organiser ay compétition en lutte olympique te développer la lutte sur toutes ces formes la ñu wax ci cahier de charge CNG ñuy waxaat encore ci sama candidature di wax ni li ma def see légal li ma def c'est une candidature proactive am naa droit tey muy CNG muy fa nga xamante ni poste nomination la wala emploi bu ñuy joxe am naa droit nekk fa candidat loolu tey ñoom suñu demee ci ay texte dinañ ko gis loolu lañuy ñuy wooye une candidature proactive li si tasaat mooy damay confirmer waat samay diir di ko leeralaat encore ci kanamu nit ñi je suis à la succession de Alioune Sarr ñiy wax naan ministre Matar Ba Keba daf ko bañ a seeti bañuma koo seeti moom moo jiite sport muy football muy làmb muy judo ak lu mu mën ci doon action wu jug dem bañuñu ko mais dafa am si lu muy jaar ndax ku yilif moom mooy xool tey li nga xamante ni mooy yoon mu di ko teg di ko wax nit ñi ndax démb suivre naa ko mu ne lépp lu xew si làmb xam na ko su gisee nag ay nit ya nga xamante ni ñoo ngi intervenir ci làmb di ci wax am sañ-sañu taxaw def une candidature war na leen a mën a woo parce que ma candidature elle est spontanée voici le terme su waxtaanoon ak cellule de communication dinañ ne ko Kéba lii mu def si yoon la ko teg parce que candidature spontanée lu existe la su boobaa su ma woowee en tant que ministre. pour ma ñëw wax ak moom ci wàllu làmb dinaa ko wuy mais encore une fois ma bamtuwaat samay wax yi ma doon wax CNG du lu may négocier du lu may waxtaane parce que wutuma ministre bi mu kontaan wutuma promoteur bi mu kontaan li ma bëgg mooy làmb kontaan moo tax nag lu ñu wax wax a wax a wax a wax ba ñëw fii ba démocratie am si làmb ji nañ ma ko sante ndax avant man kan moo fi taxawoon di ne mën da remplacer Alioune Sarr vingt six ans kenn mosu koo dégg alors ma génn commencé débat yi commencé si wax ba ay décision di waaj a génn ñu bëgg a wëlbatiku ne noom amul droit nekk candidat mais au nom de quoi su dee tey lu ñuy joxe suñ ma ci boolee woo ma laaj ma ñu xool confiance bi xool compétence bi xool connaissance bi xool circonstance yi mu nekk la nga xamante ni war naa ko mën a yor mais kon man waruma jug di leen wuti ñoom ñoo ma war a woo laaj ma lañ ma war a laaj ma tontu leen la ma leen war a tontu si ful la ndax nag waxuma ak Matar Ba ministre sport lay wax dama bëgg mu leer parce que tey ni mu fi nekkee mën na fay jóge suba moromam ñëw fi te daf fi ñëw fekk fi làmb su fi jógee aussi dafay bàyyi làmb man. nit ñi dañoo ñëw fekk ma ci làmb du sama papa moo jàpp sama loxo yóbbu ma ci làmb du buur géwal mi du yéen ñi jàkkaarloog man ba may ñëw ci làmb amour ak pas-pas ak bëgg-bëgg moo si yóbbu te loolu ma fa moo ma fa bàyyi te si laay continuer di nekk dama bëgg nag sénégalais yi laay waxal nekkatuñu si situation ba nga xamante ni dañuy jël li nga xamante ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp muy suñu cosaan di ko fooyee di ko caaxaane suñu waxantee dëgg làmb ji ku ne nekkul ci crise da ngay wax lu la neex ndax foo dégg quatre mille et quelques licenciés ñi siy fayeeku dix millions matuñu quinze personnes mbër yi di jóge fii di dem ba ay àll di bëre di daanu di ñibbi ay loxo yi neen seen kër ndax ay cotisation arbitre di taxaw di laaj des meilleures conditions ñu leen di raje te pourtant su ñuy wax ci wàllu discipline parce que maa ngi dégg ñu ne non ñoom li ñu waroon a def defuñu ko dañoo waroon a bind mais ku déglu débat wu arbitre yi ne ñaata yoon nañ bind CNG kay forme de communication bi muy utiliser mooy la communication intersubjective seen biir rek la ñuy wax man nag j'ai choisi une communication médiatée lépp lu may wax dama ciy wut ay témoins pour ëllëg si biir. li ñoom nguur géwal di wooyee vaar ñu mën koo génnewaat teg ko ne Kéba yaa fi waxoon lii nañ xool tey lutte olympique fan la toll lan la mës a indi ñu jëlaat ko jox ko àqam ndax état wu Sénégal su mënee indi arène nationale war naa mën a tey indi centre ya nga xamante ni nit ñi dañ ci mën a entraîner ñu am ay tapis comme niñ ko bëggee mais ban athlète nga dégg ne tey moo ngi ci beneen club amul ndax goos yi soo leen formé wul soo leen formé wul pour ñu mën a dem à l'extérieur di compétir yaakaar naa ni kon Sénégal jar muy wut lutte olympique drapeau CEDEAO bi ñuy organiser fii tey benn boobu sa la yam lutte simple da ngay gis comme li ma wax sànq mbër bu jógee dëkk ba dëkk dem bëre ji. cotiser 1000 francs ñu daan ko muy ñaan reer wala paas bu mu ñibbee mais loolu dafay fi war a jóg maa ngi interpeller sama xaritu promoteur yi xam naa ni aussi suñ ko déggee dinañ leen xaw a dina leen dinañ ma xaw a mere mais dama jàpp ne même su fekkee ne nombre bi day yokk ndax tey quand on parle de lutte simple on parle de 60 ou 80 athlètes yuy ñëw di compétir quand on parle de lutte avec frappe on parle de 20 athlètes 10 combats kon donc jàpp naa ni. war nañoo mën a trouver ñoom solution ba nga xamante ni au lieu mbër mi su ñëwee di cotiser pour bëre ñoom ñu xool mbër mi su ñëwee inscrire nuñ koy joxe dara pour mu def ci biir poche ndax amul benn lutteur lutte avec frappe bu ñemee jóge këram di dem biir stade te xamul ne reliquat moo ci biir CNG kon na jéem a tolloolee athlètes yi nan nañ leen di récompenser. ñu waxaat encore une fois équipe nationale bi nekk Sénégal di génn di représenter le Sénégal nañ leen mettre dans de très bonnes conditions loolu ministre des laa ko wax parce que tey moom fu muy taxawee di défendre budget pour football di défendre budget pour leneen war na mën a défendre budget wu suñu sport national bi nga xamante ni jéggaane wuñu ko fenn loolu kenn du ko tere te yaakaar naa ni sénégalais yi duñ ko ci mere ñu terminer aussi tey si problème mu arène nationale c'est bien beau niñ ko defaree rafet na don la du don loolu du sama domaine mais li ma ci amal solo mooy sécurité arène national nañ ko renforcer parce que su fekkee ne dañu ne dañ ko defar spécialement pour mbër yi mën faa bëre normalement am na yenn sanction yi nga xamante ni ñoo ngi ko doon utiliser démb jóg war nañ koo suspendre biir arène nationale le pourquoi bouteille dix litre yi ñu doon wax wala indi furno wala indi leneen lan moo taxoon ñu koy tere parce que foofu gazon synthétique la woon mais arène nationale nañ ko defaree su fanaanee woon taw ba suba sax ndox mi dem asamalaat ñu indi bouteille dix litres kon foofu jàpp naa ni waratuñ faa dagg kenn bouteille dix litres ñu jël en aussi fi mu nekkee ndax bu mbër yëpp a dëkk Pikine du mbër yëpp dëkk géejawaay am na ñuy jóge Fass am na ñuy jóge Colobane am na ñuy jóge yeneen gox convocation yi ñu leen di jox aussi nañ sóoraale jël en compte ne war nañoo mën a tardé parce que ñoom ñoom moom seen bës waaye ñu moomuñu embouteillage yi ñu sénégalais yi doxi seen yitte mais nga tardé une minute ñu dagg la dix mille francs nga tardé waat deux ñu daggaat dix mille ba à la fin mën ngaa tardé boo soo ñibbee CNG yow yaa koy amel xaalis pour beneen combat aussi. bëgg naa président bi ñëw mu bàyyiwaat si xelam may terminer encore si problème mu entraîneur yi ndax seen CNG tey maa ngi gis sama xarit Matar Ndiaye manager moo ngi fii mais CNG ni mu def ba protéger tey les managers na def noonu ba protéger les entraîneurs ndax tey ñoom ñoom ñooy suivre gosse yi di leen entraîner di ànd ak ñoom di yeewu 5 heures du matin te koo ci gis su entraîné ba pare moo ngi ñaan paas bu mu ñibbee CNG na leen protégé 10 pour cent yooyu di jëm si ñoom manag ñoom manager yi ñoom mataar Ndiaye nañ ci jéem a xool nuñ koy jëlee cinq pour cent di ko jox entraîneurs yi ñu protégé leen nii ñu protégé manager yi ñu protégé leen nii ñu protégé promoteurs yi ñu protégé leen aussi nii ñu protégé mbër mi nga xamante ni dugg na ci biir géew encore une fois làmb suñu bëggee mu développé dafa laaj toog waxtaan du ay xiiroo du ay ŋaayoo du ay président Alioune du ay njàmbe du ay keneen problème bi problème structure bu jiite làmb la démocratie fu mu amul jàmm du fa am jaay doole bi ñuy jaay doole mbër yi soo gisee tey ma interdire mbër yépp ne bu kenn ñëw ci point de presse bi que xam naa ni ku ñu fi séen su fekkee ne ñoom ñoo fi toogaat soit ñu woo la menacé la wala ñu adressé la lettre wala nga ñëw ci làmb ñu sanctionné la loolu doxalu sport il faut que ça arrête président Alioune Sarr nekk na fi def na fi vingt six ans vingt six ans yi doxal na nu mu ko neexee nañ jël affaire yi ñu teg ko ñu waxtaane ko trouver consensus man bañu ma tey bañu ma tey ñu woo président école de lutte woo association yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ŋànk làmb ji ne leen président Alioune Sarr ségam day dem parce que loolu wóorul ndax suñ ko reconduire aussi état moo ko fi teg lu dul xëyaat suba teel sañ sa dem seetaani làmb mënuñu si leneen wala taxaw di wax suñ koy reconduire ñu reconduire ko avec des conditions mu ñëw installer démocratie si biir làmb xam ne sanction du jàpp nit ki rek dagg xaalisam xam ne sanction du arbitre yi dañoo dem grève rek dañ leen di radier ñu ànd ak yow à peu près vingt ans yaakaar naa ni ministre bi su ne moom mënu see intervenir waroon naa xam loolu premier jour bi ba bañ leen a woo naan leen bu leen dem leen arbitrer parce que moom moo ko wax moom moo génn ne woote na leen waxtaan su xamee ne waxtaan bi da koy commencé te du ko eggali kon jarul muy woote. ndax je pense que ni moom moo jiite waa CNG waa CNG jiite wuñu ko ah bo si li ma yaakaar kon su problème amee si njabootam na leen woo atte dëgg ndax CNG rajo bi ñu jël rajo ko arbitre yi d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg loolu dama bëgg mu leer kii ñëw aussi mën na am sax mu nekk euh, Alioune à la place de Alioune mën nañ ci citer ay non mën na nekk le professeur Babacar Diouf ñoo ngi avancé turam mën na nekk ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mën na nekk sax buur géwél parce que buur su ma ni ma ko gisee mu koy ni mooy xoole ni xam naa ni copain Alioune Sarr la mais bref man sama maam la alors ñu continuer si lancé boobu nañ rectifier le tir c'est pas encore trop tard ndax tey ay kilifa suñu jëlee décision mën nañ see dellu ginnaaw mais décision bi ñu jël mën na leen a yàqal mën naa yàq làmb ndax nañ xam ne arbitre yi nekk fi ñooy jógee fii dem extérieur di arbitrer goos yi nekk fii bàyyi làmb bi dem extérieur extérieur di fa compétir di fa def yeneen sport xajoon na fii promoteurs yi aussi ñoo ngi leen di ñaan képp ka nga xamante ni nekkoo ci ay disposition bu dëgg làmb bul jël ay billet di ko jox xale yi nañ comprendre aussi ne mbër yi bëri dañoo am njaboot dañuy xëy suba teel di joxe dépense yor ci seen yaay alors enfin pour terminer benn kaa ba nga xamante ni dama ci wax directement su fekkee ne ñoom mënuñu ko ñu wax ñu ko ñu xool nuñ koy def ba créer leen ko wul ñu fa teg mu di ko doxal muy fondation làmb jot na pour mu am fondation parce que tey nga gis mbër bu feebar ñu jël ko site yëpp ñëw wane feebaram di ko ñaanal ndimbal pour ñu faj ko ba mu xëy génn àdduna yaakaar naa ni muy ministre des sports dégg nañ lim si def waaye la CNG kenn war ko si woon jiitu pour éviter problème yooyu nag nañ fexe ba mettre en place une fête euh, une fondation ba nga xamante ni mën nañoo dem fu nekk ci biir àdduna di fa wuti ay fonds pour ëllëg si biir genre cas de figure yooyu su amatee ñu mën a régler le problème sans pour autant que nit ñi di def ay téléthon di ñaanal nit ki wala di dem ñii di yónnee ay Orange ne loolu dafa jekkul ci image wu làmb ndax su fekkee ne assurance bi nga xamante ni dañ koy dagg si seen licence en même temps combat bu ñu am dañuy dagg assurance xaalis boobu du leen laaj fu mu fu mu jëm ndax bi moment où nee nañ ñoom ay bénévole nañ kenn fayu leen. monde làmb bi ñu d'accordee waa CNG ne ay bénévole nañ nañ d'accord kon aussi ñu ne xaalis bi jël nañ ko yóbbu nañ ko ministre des ñoom dañuy rendre compte parce que ñun fay ñu leen te loolu le chef de l'État moom moo ci war a jël ay mesures su fekkee ne ñoom bi ñu ko waxee noonu la amee CNG dañ leen fee teg pour ñu liggéey kon suñ fi toogee di liggéey dañu leen war a fay ndax làmb nekkul la nga xamante ni nit ñi dañ fay ñëw di yelwaan su boobaa. su ñu leen daggee xaalis nit ñi dinañ mën a ñëw taxaw ne leen hey xaalis bi ngeen ñu dagg keroog fan la jëm su boobaa frais d'organisation yi ñu leen di jox nit ñi dinañ mën a ñëw laaj leen lan ngeen siy def maa ngi nuyu ñëpp encore une fois di jaale waa Pikine Jules Balde Junior di jaare waa Tëngéej Papa Yadda numéro 2 di jaale ak lu làmb yëpp Pape Dia. mi nga xamante ni mooy magu Bombardier nekkoon ku seqoon jàmm ak ñépp di ñaan yàlla yàlla xaare leen àjjana di wax ni maa ngi jéggalu ci retard bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.